rafetlu woon bi ak télévision Futur Média benn waxtu jot na ak seeg yéen ci xibaaru digg bëccëg gi la ca gën a fës rapport ko OFNAC euh, bari kër yu ñu dut baaraam ngir yorin wu sellul kudd bokk na ca pharmacie nationale d'approvisionnement permis de conduire yi ni ñu koy joxe poste finance port autonome bu ndakaaru euh, kuréel gi bëgg tap loi bu soxal xeex transhumance déclaration de patrimoine jàpp nañu ni téeméer boo ca jël nji war ko def juróom fukk ak benn mel loolee gën a fës ci la ñu mën a tënk ci at mi Moustapha Niass lu ko neex la wax ci communiqué Ousmane Sonko nit li leer li cote la assemblée nationale ba tey ji am na l'impôt bu mu fayul njiitu Pastef dina leen direction impôt yóbbu fa mbaxana donné benn maître El Hadj Diouf di ci sàkku ab l'enquête nee na président Macky Sall sax tas assemblée nationale mu gis ni kon ci wàllu woowu la ko taxoon a jokk moom pencum ndaw réew mi da lajj ba tëdd tëdd euh, kon nañ ko tas xëcc wote yi fal euh, député yi askan wi na mu ko gisee àdduna ñu ci euh, seen xalaat ci biir xibaar yi Tivaouane it danañu fa àgg sage-femme yi ñoo bëgg ñu renforcer leen recruter ñeneen bari nañu ni ñu fay xëyee ko gont gontu taamuñu benn contrat dossier bi tey ji ñu ngi ko jagleel quantum horaire bi lu waral matale 900 heures yi jafe lool fii ci Sénégal ñu toll ci diggante 650 700 heures ponk yaatal ko dellu lu seen euh, teewaay euh, ak télévision Futurs euh, Médias bokk na ca secteur ya ñu joxoñ wàllu suuf si kudd bokk na ca pharmacie nationale d'approvisionnement dem ak dikk bi ci suuf si ak te lu jëm ci permis de conduire yooyee nañu koy joxe yi secteur ak yeneen of nag ñoom ñoo leen joxoñ baram ci rapport bi mu génne atum ren ji boobee rapport ci talaata ji lañu ko présenté ñetti téeméer ak ñaar fukki plainte lañu ca daal tënk ci réew mi ñëpp nag jàpp nañu ni fu ne kalaame jóge na fa ba mu sëf gox bu demee ni euh, Kédougou yooyee secteur kon wax nañu ko euh, ay fu demee ni port it wax nañu ci mbiram poste euh, naka noonu kii ko jiite Nafi ngoom Keïta janoo ci ak waaye taskatu xibaar yi kon indi ci ay leeral ca la ñu mën a jàpp ci rapport ren bi ci tilika di saprera ci rapport bu njëkk bu mu présenté nag jot na lu toll ci ñetti téeméer ak ñaar fukki plainte ci lim boobu kuréel gi traité na lu toll ci ñeenti téeméer ak ñaar fukk bu fekkee wàllu suuf moo ëpp ci plainte yooyu ndakaar Dakar ma région bi gën a ay plainte. pour l'essentiel. les li ëpp ci plainte yi mu ngi bàyyeekoo région de Dakar fii nag am na 207 plaintes muy 67 pour cent ci li ñu jot waaye région yépp la yitteel ba mu des région bu Kédougou bitim le nombre de plaintes de l'étranger s'élève à deux. am na ay entreprises privées yu af nag njort ne def nañu naka sudul noonu waaye service public bi tamit enquête bi feeñal na fa ay lëndëm lëndëm ca port autonome de Dakar. ca pharmacie nationale d'approvisionnement ak poste finance of nag gis na fa ay fo et usage de fo ak yeneen doxalin yu waroo ak yoon. du groupe Poste Finance. ca Poste Finance constaté nañu fa faux et usage de faux ci wàllu njëndum fourniture de bureau ca port autonome de Dakar directeur bii dañ ko plaintoon waaye même bu fekkee am na yu enquête bi wanewul am na ay manquements yu grave ca pharmacie nationale d'approvisionnement tamit gis nañ fa ay mbir yoo xam ne jaarul yoon. ont été relevés. beneen pam ci présentation rapport bi aju ci déclaration de patrimoine kuréel gi xeex corruption nemmeeku na ci côté boobu ay avancement téeméer boo jël lu ëpp juróom-benn fukki yi wàccoon nañu ak loi bi. au total 385 déclarations. mu toll nii jot nañu lu toll ci 385 déclaration patrimoine ci 742 yi nga xam ne amoon nañu leen ci benn base de patrimoine. fi mu toll nii nag mu ngi wéyal juróom fukki enquête ak juróom yu bàyyeekoo ci téeméeri plainte rapport bi joxoñ na tamit secteuru santé éducation transport service de sécurité yi ak lii di marché public yi nga xam ne nguur gi moo koy joxe. dis après ra bëgg nañu tam ab euh, charte euh, ci li nga xamante ni moo di transhumance euh, gis nañu ne bu booba dana réglé it mbir yu bari communiqué bi Moustapha Niass njiital l'Assemblée nationale génne di wax ci mbir yi lempo yi foofee lu ko neex la wax amut bopp amut genn ka xamle lu ni mel moo di Ousmane Sonko njiital Pastef la mu waxoon ci koppar yu assemblée yoreel kees yi nguur gi dara dindiw ko ci yokkal na leen sax ni lu jëm tànk bu weesoo koppar yooyee. ba ñu ko jëlee te wersewuñu ko deniers publics la ñu leen war a toppee mu bëgg nag euh, ñii di direction impôts et domaines daal di cay indi kon ay euh, leeral euh, mu ci doon jën waag waaye taskatu xibaar yi ñu ànd ci ak Ibrahima Kane Jafara Ba ginnaaw communiqué bi Moustapha ñas génne ngir nag leeral mbiru fay impôt ba ca assemblée nationale moom Ousmane Sonko ne yëf yi doyu ko fa mu jàppoon ba léegi jógu fa assemblée nationale ci lu jëm ci fayum l'impôt dëppowul ak yoon. cohérence entre montant bi mu ne ñoom moom la ñu war a fay at wu ne assemblée nationale muy 120 millions ak li nga xam ne moom la ñu bind ci budget bi muy charge de personnel assemblée nationale munoo ne ñi ngi fay salaire 8 milliards 600 millions. ba pare amul lu ñuy fay ci lémpo lu dul 120 millions loolu loolu incohérence weesul lool moom Ousmane Sonko jàpp ne communiqué bi Moustapha Niass bind daanaka dara leeru ci te xool sax dafa bëri ay incohérence nee na ñoom bi ñu toogee fii ba léegi 174 millions la ñu fay te 174 millions yi 120 millions yi ñu fi fekkoon ñoom te fayal ko ñi fi jóge mi ngi ci biir. boo defee calcul bi ça veut ñoom ñeenti at yi ñu toog fi yëpp 54 millions la ñu versé la ñu reversé te boo jëlee 120 millions multiplier ko par ñeenti at yi ñu mu tuuti tuuti 480 millions la waroon doon. moom jiital parti PASTEF yemu ca jàpp ne assemblée nationale dañuy luubal ci wàllu impôt teg ca tamit ne xaalis bu bëri bu waroon a dugg ca gafa réew mi dañ ko jàpp teg ci seen loxo. assemblée nationale contribuable la boo xam ne suy jëflante di jënd. suñ ko nee 100 la ak TVA 18 moom. cent bi lay jox waa ji dix bi da koy retenir moom moo koy reversé loolu la ñuy wax précompte de TVA loolu it assemblée nationale jël na ko retenir ko waaye reversé wu ko te xaalis bu baree baree bari la su doon waa l'impôt domaine d'accord nañu wax du ñu wax nag waaye suñu d'accord wax ak yéen ba wax leen li xew li ma wóor ba wóor mooy ëpp na montant bi presse bi joxe sax ci xaalis bi nga xam ne dañ koo détourné ngeen jàpp moo bu baax détournement de deniers publics la en plus d'infraction de fraude fiscale ci biir assemblée nationale. gannaaw nu dayo mbir mi nag moom Ousmane Sonko di ñaan direction générale bu impôt et domaine ñu jël ci matukaay yépp ba lépp lu ci yoon wax ñu daal di koy matal ba mu mat sëkk. député la wax na ci maître El Hadj Diouf ni weeru mars gi rek dagg nañ ko 38000 francs euh, ci wàllug euh, l'impôt mu bëgg nag ñu ubbi ab euh, xool xaalis boobu yëpp kon fan lay jaar moom it mu seqoon janoo ak waaye taskatu xibaar yi ngiri firnde génne na bulletin mu wane ni moom dafay fay l'impôt moom moomee njiital PTP xamle it ni lu jëm ci li nga xamante ni moo di au conseil territorial wees wut béréb boo xamante ni clientèle politique njiitu njiitu réew mi la ñu fa bëgg a placé dellu si ca boobee jàkkaarloo ak Cheikh Tidiane Dione Diouf daal di xajamal tere ñii di waa assemblée nationale gannaaw ba mu yëkkatee lii du bulletin de salaire moom di wane ne mois de mars bi ñu génn jot naa fay l'impôt te loolu nag mu ngi toll ci juróom-ñaari junni ak juróom-benn téeméer. Je vous 38 000 d'impôts ça y est vous moom nag mu ngi sàkku ab enquête ñu daal di koy ubbi ngir mën a leeral li nga xamante ne moom mooy impôt yi nga xam ne jot nañ ko fay ñu ngi ko doon daggee ci salaire u njiiti député yi. donc il faut une mission à l'Assemblée nationale une mission d'audit man damaa jàpp ne faw daal ñu daal di taxawal benn mission boo xamante ne moom mooy càmb moom mooy càmbar euh, lépp lu jëm ci wàllu leeral mbir moomu euh, audit war naa am contrôle tamit war naa am war nañ ci boole ñii di waa OFNAC waa Cour des comptes wala IGE ndax ñu ngi ne fukki million la euh, la ñuy weer weer bu ne daal gis nañ ne am na lu tollu ci cent soixante dix yoo xam ne ba léegi kenn fayagu ko faw mbir mi leer. c'est depuis maitre El Hadj Diouf ci conférence de presse ba léegi moom mu ngi xam le ni lii di haut conseil territorial amul benn njëriñ moom mu ngi ci yokk ne sax président de la république dafa war a delloo kii di ay dëmboo li mu moom. douzième législature bi nag la ko taxoon a jukk dañu ca lajj ba nërmelu moom Maître El Hadji Diouf moom moo gisee ba tey noonu la mu bëgg sax mooy président Macky Sall gannaaw lañu doon séntu ca ñoom assemblée defu ko mu faf tas pencum ndaw réew mu amal yeneen élection yu ñuy xëcc euh, teg fa ñoo xamante ni lañuy ñuy ca ñoom danañu ko jëfee ñu teewlu lay kàddoom. par rapport aux difficultés par rapport aux problèmes. Euh, président lii di coow li bari na ca assemblée nationale xiiroo gi ak ŋaayoo bi mel ni tulleeg male bés bu yàlla sàkk daanaka duñ koy dund euh, incident yi kenn mënu koo lim man sama xalaat li ma lay ñaan moom mooy lii di assemblée nationale nga daal di koy tas daal di organiser élection anticipée euh, su ko defee Sénégal daal di am ay député yu bees yoo xamante ne li leen di ñor moom mooy bëgg-bëggu askan wi ak seen yitte. qui défendent les intérêts du peuple. Sénégalais yi nag wax nañu ci eh, coowal lempo yooyu ci assemblée nationale la ñu gis moo di eh, Ousmane Sonko li nga xamante ni mi ngi koy wax bu dee dëgg la questeur eh, ak ki xamante ni mooy président assemblée nationale dañu ci war a indi ay leeral waaye it indi ci ay firnde ci loolee ñu leen di toppee bu fekkee defuñu ko ay preuve la ñu bëgg ba ñëpp xam lan moo xew dëgg foofee Aminata Bare Sow. Sagna moom nag biñ ko laajee xalaatam ci li nga xam ni moo xew ci assemblée nationale lii lee la ñu wuyu. révéler un truc comme ça nit soxla nañ ko parce que bu ko bu ko wax waxloon tamit kenn xamu ko bon après loolu euh, je pense que déjà assemblée nationale waruñu waruñu def lu mel noonu. moom mu jàpp ne fay impôt obligation ci bépp citoyen waaye fi mu toll nii assemblée nationale mi ñu joxoon baaraamu tuuma nee na du doxalin bi la ñu waroon jël. Moustapha Diakhaté mu ne ñoom ñi nga fay seen impôt. parce que ñi ñi ngi koy dagg seen salaire kon à revoir Moustapha Moustapha Niass mi ne moom mooy président assemblée ak caisseur bi kon ñoom la ñu war a xool ñoom xaalis boobu fan la jëm. mais citoyen la d'abord après tout gis na li nga xamante ne pour ñëpp parce que de toute façon. waa assemblée bu ñu fay xaalis bi ça va pas dans les poches de monsieur Sonko. keneen ki mel ni ki koy feelu xale bu góor bi jàpp ne fii mu toll ni Sénégal impôt bokk na a bu ñu joxewul impôt yooyu le nag lu bëri ci suñu économie sénégalaise du mën a développé wu. impôt ñëpp xam nañ ni bokk na si liy defar développé réew mi parce que si la ñuy defar tali yee defar si école yi defar si hôpital yi ba pare di ba pare di si fay yenn salaire yi kon yaakaar naa assemblée ñoom ñoo war a wane benn bon exemple. bu fekkee l'inspecteur des impôts li mu wax dëgg la je trouve ça anormal du yoon jaaduwul parce que député yi bu ñu fi nekkee euh, askan bi ñoo leen fi teg. loolu tax nag. kii di monsieur Sagna ak ñeneen ñi mu àndal jàpp ni ki nekk questeur assemblée nationale ak président bu assemblée nationale ñoom ñoo war a leeral mbir mi. mooy may surtout que mooy que le questeur de l' assemblée nationale maanaam euh, defe naa ne mooy yore xaalisu assemblée nationale dañuy war a fay xaalisu impôt ba pare mu wane bulletin bi comme El Hadj nu mu nu mu def kayit bi mu wane askan bi yëpp nii ñoom fay nañu. wii ci wàllug xibaar yi ak ay dogal ñu war a jël ban doxalin ba fexe ba askan woowee du ñu mën a consommer loo xam ni waxul mën a dugg ci biir mu périmé wala euh, beneen xeet boo xamante ni da koy jural loraange su ko jëfandikoo service d'hygiène nee nañ ñoom ku ñu fekk teg woo ca woowee yoon am nay daan ñuy teg ci seen kaw ñi nga xamante ni nag ñoom ñoo yor wàllu njënd njaay mi ñoom ay laboratoire lañu ni ñanga ak moom am ñu cay liggéey ngir di contrôler qualité ca lu Maymuna Njaay moo ñu ci defal ab gëstu. ci xarala yi la ñuy xoolee ndax li ñuy jëfandikoo baax na am déet laboratoire bi ñu amal ko ci ñaari pàcc gëstukat yi at bu ne dinañu amal lu jege ñetti junni analyse yoo xam ni dañ koy seetantal ndax lekk yi baax na machine yi ñu dalal ko ci màkkaanu direction bi nga xam ni moom la ñu dénk commerce intérieur. analyse yi ñu def yépp ci lu ñu lekk la. donc su amee ni loo xam ne non conformité la maanaam wane ni lii kat wàccoowul ak li yoon wax ci wala li norme yi wax ñi produit nii la war a mel soo baa dañ koy rejeté lu ci bëri dañ koy rejeté sax du dëggu. wante foog ñu ràññee ñaar yi lekk gi nga xam ni dañu ne dara baaxu ci ak bi nga xam ni dafa varié. woote nañu lool mais ñaar ñëpp ci finalité bi ñooy bokk xam nga lu avarié aussi dafa impropre. à la consommation nit ko mën naa impropre parce que avariwul am na benn toxicité am na leen lu ci nekk gàllankoor bi ci nekk boo xam ne gis nañ ci ay microbe yoo xam ne dafay impropre avariwul moom moo gën a fort daara bi dafa décomposé dafa putréfié mi ngi xeeñ kooku dafa grave kooko suñu code dafa ne ci article L45 fu ñu ko fekk nañ ko retiré. lii ñuy jëfandikoo ñu ne baaxul lu ci bari ñiy contrôlé liñ ciy nemmeeku mooy ceeb lay doon meew wala sax ay pooju ginaar. responsabilité yi ana fan la féetee. mu nekk service élevage mu nekk service de la pêche mu nekk service protection des végétaux mu nekk service d'hygiène des fois dañuy recevoir ay échantillons yoo xam ne nii que service yooyu dañ koy jël directement envoyé ko au laboratoire. ñun nag code de mooy suñu billet vert ci lu ko li mu ñu permettre dañ ciy dem ba jeex loo xam ne pergu dañuy bàyyi yeneen service état ñu liggéey parce que état la nekk. ñam yi nga xam ni baaxul ñu koy jëfandikoo bari na lu muy demee ci marché bi te ñu koy jëfandikoo duñ ci njort dara. loolu léeg-léeg ñi nga xam ni ñoo moom ñam yooyu di ko jaay li ñu leen di def rek mooy amande leen te lu ci bëri ci service yi du weesu ñeenti junni fi mu toll nii ñi ci yëngu ñu demee ni service di d'hygiène li ñu bëgg mooy amande yi ñu weesu ko ba ñuy wax sax délit. ñii moom euh, jàpp nañu ni ñoom it teguwuñu ci yoon koppar yi ci Sénégal ba ñu yoroon xayma nañu ko ci ñeent fukk ci million ñetti téeméeri kilogramme ci wàllu yàmba ñu teg ko loxo diggante kon fi nga xamante ni moo di Cambérène jàpp Yoff ñu jàpp ci it ñetti sénégalais Fatick ay bolo bologu sinébar bi di yàmba ñu teg leen ngay xool ba fa sëbët yam loolu nag di liggéeyub OCRTIS gannaaw ay ay bës yu ñu amal ay investigation ndawi commissaire principal Idrissa Cissé teg nañu loxo ci sinébar bi benn waay ak juróom ñaari kilo yi yàmba biñ ko en biñ ko enquêté la ñu xam ni moom en fait nekkuloon lu dul répondant ku mag ku nekk ci ginnaawam koo xam ni daf koy jox yàmbaa ji waa ji bi ñu demee këram fekk na nañ fa 300 kilos chanvre indien fekk na nañ fa également benn arme pistolet boo xam ni en général armu force de sécurité yi ñoo koy yore. ñu njëkk a dem géejawaay jóge fa jàll yoof ñetti doomu aadama ñu teg leen loxo ci mbir mi kenn ku sant ñaan ku sant ñaax ak soxna bu sant laax. dañu investiroon ndakaar ak banlieue yi am notamment Géej ak Jawaay ak boor Yoff APEXI ñaari brigade yi ñu teg ci mbir mi teg nañu loxo nag ay balu fetal ak itam yeneen xeetu ngànnaay fekk nañ ak kenn ne ci ñoom lu mat 38 cartouches leeral également ni biñ ko laajee moom dafa ne arme bi mu ngi ko jënd le 25 mars 2012 ñu ngi continuer investigation yi te am nañ yaakaar ni dinañ gis kooka am nañ yeneen pexe yoo xam ne aussi ñu ngi koy nas. ci ñett ñooñee ñu teg loxo kenn ki moom xamante na yoon lu bëri ndax def na ci kaso bi juróom-ñetti at. OCRTIS di sàkku ci askanu Sénégal ñu jàppale leen ci liggéey bi nu jóg ngir faagaagal bépp dealer. sage-femme ne nekkee ca Tivaouane moom li ñuy sàkku moo di nguur gi dimbili leen recruter ñeneen ngir ñu ñëw dooleel leen ndax gis nañ ni foofee ñu bari ci ñu fay euh, yëngu ci kër docteur ñu kon benn contrat te loolee nag du dalalum xel euh, jooy nañu it matériel bu matul Cheikh Anta Diop la ñuy fekkee ca bor yooyu. sage-femme yi jóge woon nag ci gox yu bëri Tiwaawoon ngaay mexe Mboro Pekes ba Daaru Xuddoos feesoon dell ci saalu conférence bu maire bu Tiwaawoon doon mandargaal bëccëg gi nga xam ne taamu woon lañ ko ngir feetal nag journée internationale sage-femme yi ci loolu sax la ñu yëkkati seen kàddu jëmale ko nag ci nguur gi di sàkku ñu taxawu leen ndaxte nee nañ ñu ci bëri ñu ngi ci poste de santé yi yàgg fa lool ay at ngi ni amuñu contrat te nguur gi recruté wu leen. nekk benn plaidoyer boo xam war a franchir war a yokk lu ñuy recruter bien que état bi mi ngi def ay avancées parce que bu yàggul jëloon na téeméeri sage-femme yóbbu leen ci ay bërëb yu yu sori ci Sénégal mais à chaque fois dañuy lancer plaidoyer boobu ñuy gën a yokk recrutement bi. parce que am na aussi téeméer ak ñaar fukk sage femme yoo xam ne ñu ngi ñu ngi yor seen diplôme di chômer. sage femme bu département bu Tivaouane nee nañ jamono yi ñu ngi liggéey ci ay anam yu metti ndaxte sax l'hôpital Mame Abdou Aziz Sy baax bu Tivaouane fexe nañ ba mu am nag benn service pédiatrie waaye nag amuñu benn jumtukaay. ñuy lancer wat autorité yi pour ñu jàppal ñu si ay matériel de réanimation ay couveuse ndax hôpital Tivaouane am nañ léegi pédiatre te aussi am nañ gynécologue te ku ne gynécologue wax opérer bébé yi seen prise en charge ñuy ñaan ay matériel réanimation bi wax aussi euh, couveuse bi ak yooyu daal ñu gën cee mën a jàppale ko. sage-femme département bu Tivaouane nee nañ tiit nañu lool ndaxte ñu gis xayma yi ñu def jéggi na dayoo ci jigéen ñi nga xamante ni am nañu cancer ci seen bututu njurukaay ñu ngi ciy sàkku sax kilifa yi ñu taxawu leen. gën gu wergu ma wax ci njàng mi ak quantum horaire bi euh, waxtu yi ñu war a jàng ñu tënk ko ci euh, juróom-ñeenti téeméer ci waxtu loole nag Sénégal ñu matale ko fi euh, lu jafe la ñu ngi ci diggante 650 jàpp 700 lan moo waral lu ni mel tontu li ci gëstu Aminata Mbaare Sow école bu ubbee ci mois d' octobre jàpp euh, fin juillet dafa am ay nombre d'heures yoo xam ni dañ koy teg ngir ñu mën a wax ne année bi valide na loole la ñuy duppee quantum horaire. quantum horaire mooy rek euh, waxtu yi nga xam ni euh, war nañ koo jàngale wala xale bi war na koo jàng pour que ñu mën a nangu ni li mu war a jàng ci at mi. jàngal nañ ko. loole doon pàcc bu am importance ci wàllu njàng mi waaye fii ci Sénégal ndaxam ñu ngi respecté quantum horaire boobule. jàng bi tamit dañ naan école dafay ubbi octobre te juillet ci diggante bi am na ay vacance ñaari vacance Noël ak Pâques mettons vacances yooyu du rek pour pour dem foy dafa école bi moo ko laaj mm-hmm. jàng bi moo laaj loolu parce que. élèves yi war nañ ko jox leçon bu demee war nañ ko def exercice mu tàggat boppam war na bu demee këram mu jàng liñ ko joxoon ba mu mokk bu dellu see mu def composition wala devoir wala examen loolu mooy rythme normal bu amee ay grève nag yëpp du am. bu ñu sukkandikoo ci yenn écoles yi ak niveau de classe yi am na ay uute fii ci collège bi principal bi mu ñuy wax fu ñu toll. boo jëlee élèves sixième yi ak élèves cinquième yi ci semaine bi ñu ngi def environ euh, ñaar fukki heure ak ñett jëm ñaar fukki heure ak ñeent hmm? nga jël élèves quatrième yi ñu ngi def ci semaine bi fanweeri heure ak ñett jàpp fanweeri heure ak ñeent ci disponibilité classe yi ak professeurs yi loolu yëpp boo ko xayma mën naa wax ni diggante sixième ak cinquième ci année académique bi ñu ngi def environ juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñaar fukk ci sama école heure nga jël quatrième yi ak troisième yi ñu ngi def junni environ ay teg ñaari téeméer ci heure. waxtu pour jàng waaw waxtu pour jàng. at mu ne ay grève ak ay fête yu bëri ci biir njàng mi loolee tax ñenn ñi jàpp ne dina jafe lool ñu egsi ci quantum horaire. gis nga ne grève bi par exemple élèves yi ba léegi defaguñ conseil de classe donc mënuñu xam li ñu defoon lan la ci école bi xalaat. donc élèves yi ñuy dem loolu perte bu rëy état bu demee ba signé ne man suma ma signé yi mun naa ko respecté. parce que accord yu mën a respecté rek laay signé nga dem ba signé accord yooyu ba tam ba bare dem di ba pare doo doo ko respecté loolu moo waral coow li yëpp. lenn rek la ñu jàpp ne buñ ko defee du ñàkk mbir mi tane mooy grève yu bëri yi ñu daal di koy wàññi lu ko may at mu ne bu dee dañu nar a mooy ngir egg ci kantum horaire yooyu le dina tax niveau jàngalekat yi ak ñi ñuy jàngal di di wàcc bu ñu sukkandikoo ci ñenn ñi. athlétisme lépp noppi na pour euh, neuvième édition meeting international de Dakar muy organisateur yi muy ñi nga ni ñoom ñoo ca fas yéene yëngatu jàpp nañu ni bu public ba ñëwee dana ca gis lu ko neex muy reportage Cheikh Sadibou Diarra kaddu Daniel Diouf. lu toll ci téeméer ak ñaar fukki athlète soqeekoo fu ne ñëw ngir bokk ci neuvième édition bu meeting international bu ndakaaru ñi di ko amal ci stade Léopold Sédar Senghor ci àllarba bi am na ñoo xam ne ñu ngi ba Ukraine ak Biélorussie nga xam ne dañoo fort ci lancer de marto ak lancer de disque ñoom ñëpp ñu ngi fi euh, am na ay jamaïcain am na ay canadien euh, américain yaa ngi fi donc waa fàttewuñu aussi Afrique ak euh, Sénégal donc li mun wax daal mooy nationalité yi bari nañu te yaakaar nañu ne daal vraiment meeting bu bu relevé daal. ci biir athlète yooyee doomu Costa Rica bi di Neri Brenes nara daw 400 mètres yi. bii nag mooy guléet mooy ñëw ci Afrique kontaan naa ci lool ndax naa ci xam yeneen cosaan ak aada te ëllëg nag daa daw daw yu gaaw. Amadou Diouf gis na meeting bi dana neex surtout lu soxal épreuve marteau bi. ñu ci bari dañ ñu demander pour ñu participer ci meeting bi pour chercher minima yi nga xam ne mooy minima Jeux olympiques donc loolu moo tax suba di ngeen gis peut Euh, vraiment euh, épreuve yu relève bi euh, podium africain bi mi ngi fi Laetitia Bambara moo nekkoon champion d' Afrique Ami mi ngi fi Jennifer Bett bu Congo aussi ñoom ñoo nekkoon podium africain jeux jeux ñoom tamit ñu ngi fi ànd ak ay ay allemand ànd ak ay américaine donc je crois que ni lancer de marto bi rek dina nekk vraiment attraction ci public sénégalais. meeting bi nag dugg bu amul fay la ñu di ci xaar publique mu takku ngir mu pousse athlètes yi. ci meeting boobee la ñuy des ak directeur technique national bu athlétisme moom Ahmadou Diouf gis na ni euh, jongante bu nu mel day tax suñu athlètes yi gën a préparé wu euh, pour yeneen championnat yi ñuy dëgmal ci àdduna bi ñu teewlu kàddu yi mu ci dénk suñu reporter. Moustapha rek moom moo manqué ci parce que dafa def dimanche bi passé dafa def compétition interclub en France mais mu compétir ci taw bi donc nag taw boobu moo ko jàpp ba mu xaw am tuuti grippe donc ñu préféré daal euh, ménager ko pour bañ daal mu ñëw ak euh, grippe boobu et cetera xam nga boo nekkee athlète boo xam ne da am standing am na yoo xam ne doo ko nangu boo ñëwee fi contre performance ak période bi ñu toll ni nit ñu mën a comprendre donc on a préféré ñu doon xaar ñëpp di yaakaar Sénégal yaakaar leen ñu ngi fii li ñuy xaar nag direction technique nationale mooy ñu ngi ci seen phase de préparation pour dem championnat d'Afrique li ñuy xool mooy fan la ñu toll ci seen préparation parce que championnat d'Afrique yi mois prochain la presque le 22 juin. leneen lu ñuy wàcc dawal fas ak grand prix chef de l'État foofa it euh, ñu ngi ci préparation yi fan la toll ak it lu askan yu mën a xaar ca moomu ndaje sa tupay fàll jongante bu mag bi nga xamante ne ay fas a koy amal te ñu koy tuddee course hippique ñu ngi koy préparé ñu duppee ko nag grand prix du chef de l'État cinquante et édition bi la ñu nar amal rendez-vous boobu la nga xam ne ñëpp a ngi koy xaar am benn cachet bu particulier particularité encore une fois de plus mooy li jëm ci affaire innovation yi CNG bi indi parce que déjà ñun jël nañ disposition pour escadron monté ñëw fa def défilé comme grand comme Arc de Triomphe nous avons des pour faire un aux techniciens du à Dakar à partir de vendredi avant d'arriver la course. Donc, et tant d'autres d'innovations. Sénégal a toujours joué un rôle de pionnier dans yi daawoon nañu ñëw di tëbal waaye at wi moom dafa doon lu officiel ci seen bokk ci wàllum Grand Prix bi te yaakaar naa ni sax dafa nekk avantage bu rëy ndax Sénégal dafa nekk pionnier bu rëy ci wàllum course hippique. te yaakaar naa ni sax war nañu gën a mën a xalaat organiser benn grand prix mu jëm ci wàllum UEMOA. UEMOA prix de la renaissance africaine. compétition bu mag boobu nag am ay conditions yoo xamante ne faw nga respecté ko ngir mën si bokk. avoir gagné au moins une fois. da ngeen war a gën a mën a participer juróomi yoon ci at wi war a mën a gagné benn yoon sax mën a classé wu même bu dee ñaari yoon sax. loolu mooy condition cumulative yi mënuñu nangu benn fas boo xam ne day toog at wi yëpp te du daw te muy ñëw di perturber wala sax di yàq équilibre stratégie yi ñu développé du ba noppi da bëgg bu ñuy nee topp depart bi dem na. au moins gagner cette course là. ki nar a gagné nag grand prix du chef de l'État boobu dinañ ko jébbal lu toll 6 million ci suñu xaalis ci fàttali nag. fas bu njëkk bi gagné prix boobule mi ngi tuddoon ñambuur ñu fayoon ko si lu toll si 300 000 francs boobaak léegi nag ëpp na juróom fukki at. yéen i yi la ñuy daal di dalal ak Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf sàcc yeeg njublang yeeg escroc yi ci réew mi OFNAC weer na leen l'observateur nañu ba dem boole leen ak procureur bi ngir mu wax ci seen i mbir bil journal bi OFNAC mu di kuréel gi ñu samp ci réew mi ngir muy xeex guerre ak di yoole te na fi ngoom jiite ko démb lañ doon jano ak taskatu xabaar yi ngir di siiwal li tukkee ci enquête bi ñu doon def jëm ci réew mi ak ni muy doxe fa gars yi yi gënoon a jëmee seenub enquête l'observateur nañu ci wàllu mbiri marché public yi ak collectivité locale yi fu ci nekk of nag gëstu na fa enquête fa ngir doon xool ndax ger mu di corruption am na fa am déet li nekk ci rapport of nag bi ops nañu ëpp naa wax cim réew nit di ko dégg ca l'hôpital Dantec enquête bi feeñal na ne boo fa yóbboo sama laat dafa am ñu fa nekk ñoo xam ne dara doonul seen liggéey lu dul jëlee la foofee yabal la cib cabinet médical privé malade boo leen indil am nga fa junne wàllu njàng yu tar wàllu transport terrestre ci diwaanu Louga dem toog ñu wutal la permis ca centre des œuvres universitaires bu mu di kudd waa OFNAC nee nañu fa la di corruption sampe ci groupe La Poste fa la escroquerie fekk baax la tribune nañu Pape njiital groupe La Poste escroc la Cheikh Omar Anne mi jiite kudd escroc la ne bu dee ci groupe La Poste journal bi nee nañu Poste Finance moom la OFNAC di tuumal ay njaaj mu di faux usage de faux ay dil la fa gaañ a nekke woon lu ñu ne moom naan njiital kudd moom la tribune nañu kenn du moom ndam leeg trophée yeeg médaille yi lépp la rango ndax rapport OFNAC bi nee am na fa 454 millions yoo xam ne dañu ko génne natt ko teg ni subvention maanaam dimbal loo xam ne dafa am ñu koy baaxee xaalis boobee la rapport ba wax moo di bari ci loo xam ne kenn xamul fan la jaar rapport ba it nee njiital kudd di Cheikh Omar Anne recruté na sax ab néew di nit ku ci kudd daggal ko salaire di ko plafonné bañ na ko sax ba waa OFNAC li ñuy sàkk moo di Cheikh Omar Anne ma jiite kudd ñu jëlee ko fa dàqe ko fa ba noppi topp ko ci yoon ndax bu yàggee ci kudd kudd dana kuuñ escroquerie yi OFNAC gis ci réew mi libération xëy ko tudde OFNAC Papers ki jiite kudd ma nga cey détournement di fay salaire bay fay ay néew ba noppi jël ca xaalisub kudd juróom-ñetti fukki millions yoo xam ne ci ay caaxaan la ko dugal maanaam i ci groupe La Poste libération Alassane Ndiaye ñoo fa am la Sénégal nañu waa OFNAC ak seen rapport bi ñu def jëmee ko ci tolluwaay guerre ci réew mi feeñal na ay mbóot yu bare bare OFNAC nee nañu bu ñu bëggul kuddu ga sax nañu fa jëlee Cheikh Omar Anne ma ko jiite laas nañu waaye waa kuddu nag mu di centre des œuvres universitaires bu Ndakaaru nee nañu ànduñu ci ni fi Ngom Keita doxalee impôt et domaine ba ca Bourguiba agent ba fa nekk fukki junni la daan jaayee code fiscal bi ca tembarab ñeenti junni dong la ñu cay laaj nga dem fu ca mel ne ca Louga la koy jaayee Sud Quotidien moom xëy tënk yi fii ci ñaari émergence populaire nañu rapport OFNAC 2014 2015 Nafi Ngom Keïta na ay lorafanum yu njëkk gerkat yi populaire nañu OFNAC nee nañu école yi la ak élèves yi waa COUD service fiscal bu Dakar Liberté poste finance commune bu Sébikotane ak pharmacie nationale d'approvisionnement ñetti téeméeri plainte ak ñaar fukk teg nañu ko ci taabali OFNAC juróom fukki enquête ak juróom ubbi nañu ko populaire nañu mbirum Petrotim ak Alioune Sall OFNAC dana ci jublu ànduñu ci rapport OFNAC bi nee nañu jotuñu benn pré rapport bu leen di mën a may ngir ñu leeral li ñu leen di tuumal wala ñu indi ci ay tontu le témoigne nañu OFNAC ak xeex bu muy xeex wàllu njunjaaj ak wàllu guerre OFNAC xam na léegi ana ñan lay rëbbi ñu des ba léegi ci le témoigne ak kàddu Ousmane Sonko mi fi ne woon assemblée nationale du ñu fay impôt Ousmane Sonko njiital Pastef mi waxoon loolee tey la gën a Pastefu ci wax ji randuwu ci lu toll ne tarfatal nee na la am ci assemblée nationale détournement de deniers publics doon conférence de presse ngir tontu Moustapha Niasse nee na assemblée nationale yoon amu fa anki dina kay nañu moom kay daa ñëw gën a yokk ci xar mi karaw keneen ku yokk ci xar mi karaw mi ngi ci réew mi quotidien mu di député bii di maître Aladji Diouf moom mi démb la doon janok taskatu xabaar yi waaye li mu xam xalaat ko ci assemblée nationale moo di nañu ko tas ñëpp nuppalu ngërëm ko moom Mamadou Mouhamed Ndiaye jaajëfal leen yéen ñaan nag ñun benn waxtu ba léegi rédaction bi danañ dellusi si incha allah 19h30 20h ci yeneen i xibaar di leen ñaanal ngeen yendu jàmm ak programme télévision Futur Média jërë ngeen jëf.